kon nañ téye suñ làmmiñ yi Serigne Cheikh Tidiane si nee na sawar làmmiñ jarul wax luñ lay duma ëllëg dana sawar làmmiñ jarul te senegal wax rek wax rek mbepp mbepp te wax ji sax du am njëriñ la ma Abdou Aziz Diop waxoon ministre Abdou Aziz Diop ca journée culturelle El Hadj Dem bu sookoon ca Grand Théâtre ba ma jëlee kàddu di wax ne Sénégal wax rek mu ne wax ji sax bu amoon njëriñ ñu jël waaye wax ju amul njëriñ la ñuy wax te wax na dëgg ministre conseiller Abdou Aziz moo ko waxoon kon tax yàlla ne ñii tuumalaate nit ñi njaalo moo tax na ci koo xam ne foo xam ne diw doomu njaalo la wallaay moom ñëpp doomu njaalo lañ moom wallaay wallaay boo xam ne diw doomu njaalo la day njaalo moom waroon nañ ko xam naa buñ ko doon dóor moom ba danañ ko dóor ba mu dee moom nga xam naa ne kon weer wu jot dañ ko dóor juróom-ñetti fukki yar wallaay mel ni ñu jàngut réew mi ñu gën a jàng ñoo gën a doy waa ñu baal ma xàq na te yenn yi du dara iñaan la rek te sëriñ Serigne di Tidiane si nee na ki toog ba nekk mag di xëccoo cër mu ne la ko raw bari na ba muy gone la woon mu ne li ko raw bari na ba muy gone la woon te mënatu koo dabu waaw nee na wa yàlla du bàyyi am mag moo xam ne mënatut dara mu di ko roof wilaaya mu ne lu mu koy doyee mu ne ba nga gone ba ngay gone la la koy roof nga defal ko lim sant boo màggee mu noppal la waaye nga toog benn doon mag yàlla di la roof wilaaya mu ne loo koy doyee loo koy doyee mag dana dem jihaat xanaa màgget yi sax bu yoon bi daan dem jihaat fa la leen daan bàyyi bu demee it bu ñuy rey daf naan bu leen rey màgget bu leen rey xale bu leen dagg garab bu leen bu leen bu leen kañ bu leen rey jigéen bu leen rey xale bu leen rey màgget bu leen dagg garab xam nga ne kii jiyaat ju métti lay def ok moo tax suñ borom ni ñii nga xam ne nag nekkee wuñ fi lu du tuumaal nit ñi njaaloo hum ñoom ulaayika ñoom ñii hum ñoom alfaasiquuna ñooy kaccoor yi ñoo génn topp mu ne illa alladina ba mu des illa ba mu des alladina ña nga xam ne taabu tuub nañ tuub gu wér min baadi zalika gannaaw bañ tuumaalee nit ñi wa aslahu ñu yéwénal sellal ba ñëpp xam ne ñii lañ nekkoon rocceeku nañ ca ak a jafe mu ne bu boobaa nag bu leen leen waxati dara fa inna allaha naka buur yàlla xafuurun mooy jéggalaakoon bi waaye raximun mooy kii yërëme bu la jéggalee ba noppi yàlla du la jéggal rek yem ci ulaayika alladina yubaddilu laahu sayyiaatihim xasanaat booy def ay musiba gars yi dañ lay raw te yàlla bëggul ku raw jullit wala jullit saabiqu ila magfiratin min rabbikum comme kursu la yàlla bëggul ku la raw ci kursu bi te booy def musiba yenn yi bàkkaar yi sa sa vitesse de course day wàññeeku soo tuubee nag ne génn naa ci yàlla gis ne gaañaa nga fële ci waxin ci États-Unis te yow yaa ngi Dakar te départ agoo te war nga leen a jot pour duggandoor ak ñoom àjjana yàlla day jël musiba yi nga defoon bàkkaar yi nga defoon soppi ko muy yiw multiplier ko par mille pour nga dab gaaye ca états uni moo tax mu ne ulaayika alladina yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat sëñ Babacar si ne maa ngi ko gi gëmee ci dexu ndar gi mu ne da gis ku ñëw wàkk naan jóg dem nga gis ku wàkk root yóbbu nga gis ku indi póotam jóor di fóot mu ne nga gis ku indi potu sàmbur tuur raxas potu sàmbur bi tànqaat dem mu ne lépp ci benn dex gi te moo ko supporté mu ne fa la gëñee ulaayika alladina yubaddilu llahu sayiatihim xasanaan mag ñi kenn mënu leen a dem yàlla na leen yàlla fayal waaw ku mel ni sëñ Babacar si ak ñooñu kenn nu leen a dem moo tax nag ñu jeexal te jox xaaji masil la mu ne fo fa inna allaha naka buur yàlla xafuurun mooy aji jéggalaa koon ji waaye raximun mooy kii yërëme bu la jéggalee ba noppi daf lay yërëm ñun nag mën nañ laa jéggal di xonqali bët waaw ah, baal naa la sax waaye gis nga kii ni ma ko jëppee kii mbaal nga soriwut hmm. yëgal la ba noppi di xonqali bët moom kañ baal naa ko sax waaye xam nga kooku daanaka baal gi yeggut fenn yàlla nag bu la baalee ba pare daf lay yërëm mu ngi mel ni nga ñëw tëgg imaam sey pes mu mën a fayu fayuwul mu jox la beneen lex bi nga dolli mu yëkkati cent million ne la jëf ci pes yi ndax yëg naa yiw mi ma ci amee ci yàlla dootoo ko pes ba yowmal xiyam moo tax Seydou Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ne bu la nit pesee ci loxo ndeyjoor mu ne jox ko bu càmmoñ bi ne ko dollil mu ne su dee gor du dolli mu ne su dee euh, du gor nag bu dollee it dootu dolliwaat moom la wolof di wax ne bët bu rusul toj waaw bët bu rusul toj ki nga dëkk di wax musiba mosoo ko digg mu wax la musiba. ki nga dëkk di xas mosoo ko digg mu xas la te ëpp law làmmiñ dàq laa fayu war nga xam Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku la matt bul fayu mu ne waaye siiñ ko ba xam ne am ngay bëñ yaa fayuwut waaw na ku la matt bul fayu xam am ngay bëñ yaa nga boo ko siiñee yàlla boo am sell yu jekk nag dana ne ah kon de kii naa wattandiku nag dëgg dëgg su ma fi màttee moom dee laay def ndax xam naa màttu yéene la may màtt loolu loolu lay firi mu ne moo tax tey nga xam ne maa la gën a bon mu ne yàlla bëggul ñu bon ñu baax rek la bëgg tey nga xam ne maa la gën di xaj mu ne yàlla bëgguli xaj ay nit ñu baax la bëgg maa la gën di mbaam mu ne yàlla bëggul bëgguli mbaam ay nit la bëgg mu ne nit da ko naan maa la gën a yiw mu ne te doo ko ko wax da koy jëfe ndax koo taxaw ne ko maa la gën a yiw mu ne waxoo dëgg mu ne da koy jëfe ba mu xam ne yaa ko gën a yiw mu jékki-jékki ne ay la yéwén mu ne te ay mosul yéwén fenn ñàkk pexe dong la mu ne mu jékki-jékki ne ay la yéwén nag oustaz Massyla Kane moo ma gën moo koy waxal boppam moo ma gën a yiw ndax billaay oustaz Massyla li ma ko wax ci àddina te mosumaa tontu te fu ma gis teral ma waaye kii moo ma gën day am day am waaye loolu ku mën boo demee ci aaye jële la ko yàlla waxee fu yàlla na aaye jooju ku ko dégg rek sa àddina neex sa àllaaxira neex waaw ku ko dégg sa àddina neex sa àllaaxira neex idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xazin azim mooy li Serigne Cheikh boo bëggee bokk ci cër yu mag ya nga am ko incarné ko da ngay pardonné yenn yi noppi ci yenn yi muñ yenn yi te yàlla tax yàlla yéegal la ay boo fi nekkee ku la rëkk nga rëkk ko yàlla du la yóbbu fenn doo mujj sax amul loxo boo rëkkee ndax sa loxoy toqi ndax ñi lay tooñ ñëpp boo leen bëggee rëkk sa loxo toqi dangay ah, da yàlla waaw moo tax mu ne walladina gaañ nga xam ne du foofu la na ñu ngay sànni foofu lay taxawee nag incha allah azwaajahum mooy ñu ngay teg azwaajahum seen soxna yi ah azwaajahum seen soxna yi walam yakun te lahum di leen ñeel shuhadaa u ay seede am na xaj ma si la nga baal ma rek am na de am na ñoo xam ne lu ñuy daj pour jàpp seen soxna te wallaay boo ko jàppoon yow kese du tax ñu rey ko wala ñu caw ko am na ñuy bàyyi caméra de surveillance ci biir néeg bi te du ko xam am na ñuy bàyyi en enregistrement amoon naa ci benn paa soo koon nijaay lañ ko daan wax ndax sama xaritu maam la woon paa bu baax mais mbenum gaañu man xam man naa wëññi daal li ma wóor bu ma bañee fen waa soo koon yi koy déglu xam nañ duma tudd turam waaye man wóor na ma ne dund na vingt ans yoo xam ne amul soxna ndax fiir dara manqué wul këram nag waaye buy génn xam nga nu muy def soxna si du dem marché loolu sax baax na moom mooy dem marché waaye du seeti mbokkam moo boo waxee mu ne maay mbokkam amul fenn fu muy dem ci kaw suuf amul doom moom kese ci kër gi kër nga lu tax dóoru ko fiir buy génn ca peron ba lay commencé xaaji masil la di maasale ak dàllam di maasale di maasale ba ci bunti kër gi ne ko karaj karaj ut chaîne def ci tëj dem xale yi xam nga nuñ daan def dañ daan tëb buñ tëbee dox dox dox ba ci miir bi taqal bunti néeg bi bu ñëwee soxna si du am jàmm te du gis fuñ dajji kat du xam ne xale yi ñoo tëb ndax fiir baaxut boo fiiree moom dof ngay doon doo nekkati nit mujj na dundam yëpp man mën naa wàññi vingt ans yoo xam ne wóor na ma ne amul soxna ba bi muy gaañu këram yàllaa ko defal sutura bëccëg la gaañu fekk am ñu fa nekk waaye bu doon guddi musiba am kenn du xam ne gaañu na sa soxna doo ko tuumaal njaalo doo ko ëkku doo ko yëddu te loolu yëpp moo xew léegi surtout portable am portable yi na ngeen def très attention yéen jigéen ñi ma wax leen am na benn application buñ ma won jamono yële man xaw ma ci dara waaye dañ ma ci won yu bari benn benn policier moo ma ko won kaa ñëwoon la jabar ji ñëw wax ma ko fekk jëkkër ji daf ko porter plainte looloo tax ma xam ko ñu ñëw ci man mujj na man sëy yu ci bari fii ci Pikine ci man lañ koy indi ma réglé ko lii ñii ànd ak man xam nañ ko te kat dañ ma faa yóbbu woon man di plainte lañ ma fa dóoroon di sëy bu ma mayee woon waaye mujj na sëy bu lëj ñu indi ko ci man pour ma lijjanti ko wallahi pelante ba jur na may lijjanti sëy bi nag xam nga nu waa ji def ndekete waa ji dafa ne soxnaam xaaj ma si la abal ma portable mu jox ko ndekete am na application bu mu def boo xam ne communication yëpp daf koy enregistré bu wàccee nag ne ko diw abal ma sa portable bi ma seet benn kii bu paree bu ko ko joxee mu dugg ci application bi déglu déglu yëpp yëpp yëpp yëpp bu paree ne ko wax nga ak diw wax nga ak diw wax mu mujj gi soxna si foog na waliyu la wallaay maanaam ko danga maa wax nga ak diw wax nga ak diw diw lii nga wax ak moom diw lii nga wax ak moom man bi ma ko weddee genre policier bi defal ma application bi ci sama téléphone pendant un mois après laa ko dindi man ci sama téléphone bopp mu ne ma yow bu fekkee communication yi nga xam ne bëgg nga di ko enregistré mu enregistré la ko lu lu communication bi gudd gudd gudd daf koy enregistré loolu dafa xaraam dafa xaraam nga def ko sa jabar sa sa soxna waaye xaraam na ci soxna it mu def ko jëkkër ndax yëddu la te yàlla bëggul yëddu manque de confiance baaxul baaxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan wax ne ku ci tukki ci yéen balaa ngaa ñibbisi na nga yëglu mujj gi ci moom la ñuy jaar kuy tukki da ngay jaar ci moom ne ko dënk naa la kër gi dem dinaa ci indi benn xisa ajjuma bii di ñëw incha allah boo demee balaa ngaa ñëw da ngay jaar ci moom ne ko ñibbisi na sallallahu alayhi wa sallam jël benn saxaaba yónni ko ci kër ga ne ko neel diw boroom këram ñibbisi na mu ngi fii di waxtaan yum war a nëbb mu nëbb ko yum war a bale mu bale ko sañse sangu ba mu wóor ko ne sañ seeg sangu xaj na fi mu door dina ko jëf boo demee nuyul ma jigéen ja kenn du moom billaahi bu ñu royoon sallallahu alayhi wa sallam addina bi yëpp am jàmm jullit ñi rek laa wax bu ñu royoon rasulullahi addina bi yëpp am jàmm waaye malheureusement royuñ ko ci dara wax ji rek a fi ne li Serigne Cheikh Tidiane si doon wax ne mu ne Sénégal ak jullit ñi mu ne jullit ñi alquran njàng mi rek lañ yor mu ne wala dooliin waxuma la de Abdoul Aziz Imam xam nga moom mu ne wala daaliin rek yow da ngay naaw ndax ndax neex Abdoul Aziz bii toog mooy imaamu ci imaamu amookaat yi la bokk moo jiite timis léegi rek moom mi moo jiite timis xam naa di ngeen ma ne foo ne woon moom mii moo jiite timis tabaarakallah waaye bu ne wala dooliin waxuma ko billaay da ngay bëgg sax mu dolli na waaje defoon eh, eh, eh, déedéet alaaji rawaan bëkk néegam ba maam rawaan xam nga dafa neexoon baat comme alaaji Malick ak Baba Amat Cissé bu Pire ci la maam alaaji rawaan bàyyee jiite wala dooliin bëkk néeg bi ne ko amine ngom ci la maam rawaan bàyyee julli jiite ut ilimaan ñu koy jiite fekkee naa fii julli goo xam ne alaaji abdul aziz dafa tari wala dolliin amin mu jël suratul jumaa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l am ko ne ah! ci suuf alaaji abdul ne asalaamaaleykum diw jiiteel maa la ko ca fulla ja ah, na fàtte ci suuf rajo bi ne asalaamaaleykum diw jiiteel xam na ne yuuxu bi du yàlla dafa xam ne yuuxu bi du yàlla bari na ku daanu xaal daanu bakkan la waaye du daanu xaal ma ne xaal amut am na waaye yu ci bari tricherie la yu ci bari yu xew léegi tricherie la rek daanu koo xam ne dang koy tàggoo puus yi yow mën a yàlla mënoon a gaañ yëpp dara daanu <laughs> loolu du daanu xaaj masit la ah Serigne Cheikh Tidiane si nag nee na mu ne wala daali mu ne jàkka ji di riir amiin mu ne fekk xol yu bon dong nga ko lal amiin joo xam ne kenn bëggul a gis moromam mu ne moom rek laa gis ci jàkka yi man Cheikh Tidiane dëgg neexul te mooy dëgg wala déet li ma fi wax léegi wala daal dina joo xam ne ñu ngi lux luxi ci sa poche pour set la fa nekk ñu yóbbu ko ah ilimaan sa bu sëlmalee du ñeme buy dem jàkka ji lu ne dana ko jàng pour mën a génn pour dem bañ ku ko agressé balaa julli ji fajar lii jàmm na te ñun ñi neen ñooy ñoo koy agressé wante ah muy dëgg li Serigne Cheikh wax muy dëgg mën a ñun alxuraan njàngin mi lañ yor mu ne waaye application yi zéro mu ne tubaab yële ngay gis nag jànguñu ko tey jànguñu ko ëllëg mu ne waaye application yëpp cent pour cent seen application yëpp alxuraan la loo gis ñu jëfee rek alxuraan la ñun nag balaa may dee ñu naan tubaab yu bon yi nañ ma wax lu tubaab yi di def te defuñ ko ñun nañ ma ko wax rek lan la tubaab ya di def te ñun defuñ ko lu ñuy def ñu ngi def piiram te tudd ay jullit ay na jullit ana njullit gi féete nañ nekk ay jullit pire li ñu yàlla di doyee moo tax mu ne nag nañ ci bàyyi xel yëddu sa jabar dafa xaram boo tukkee léegi bay ñëw wax dëgg yàlla téléphone yi am na woo ko ne ko bébé je suis en route waaw jekk tànk maa ngi ñëw aja yegg si naa daanaka waaye di yooto yooto yoot ba ci bunti néeg bi kulbet wala yor sa caabi krek krek krek salaamaaleykum joo xam ne ci biir néeg ba ngay àkkee ji balaa mu lay wax maaleykum salaam loo moom moom kër gi sañoo ko kër gi loo ko moom moom sañoo ko ni di def ngay def asalaamualeykum tekk bañ ne la waaleykum salaam bismillah waaye yor jabar di ko yëkku di ko yëddu buy wax téléphone nga làqu ci armuwal bi <laughs> ah koo doon waxal yow it koo doon waxal ah <laughs> li tafsir li xaaji tafsir gay di wax waa ji doon jabar ji dégg ko mu ne jabar ji woo far coro wa yow diw lu ma lay woo doo jël mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne ko xam nga li ma lay wax yaa ko tey ndaw si daggal ko saaga ndey mu ne ko kañ la dee ah, bëggul jabar ji xam li mu wax kenn deewul day bañ rek jabar ji xam li xew moo tax yéen jigéen ñi tamit na ngeen vigilant bu baax a baax koo ci dégg ñu naan pôle vérifier pôle boobu ci portable bi kañ kan la moo may la nag gis nga fan yi rek am na sëy bu ci tas billaahi wal kitaabi te yéen ñëpp xam ngeen ne man ci loolu lay dox fan yi rek am na sëy bu ci tas waa ji fu mu teg portable bi jabar ji ñëw jël ko vérifier message yi day gaaw nag xam nga dañoo gaaw cek cek cek cek cek génnee xool ba noonu la sëy bi tase message yu jàmbur lu ciy sa yoon communication jàmbur lu ciy sa yoon wallahi buñ ko jaaree yoon jabar mën naa toog fii jëkkëram di wax ak ku ko neex te du ko laaj kan ngay waxal looloo war a am yow jëkkërit waxal ak ku la neex te sa jabar du la laaj koy waxal lu ciy sa yoon lu ciy sa yoon waaye am na portable yoo xam ne sax xam nga son yi day bari léegi léegi yëpp la ñuy wàññi ah ah ji du du kenn xamul nu mu mel yow it waxal jàmm waaw da ngay wax jàmm nag boo waxee jàmm jàmm am boo waxul jàmm jàmm du am tajassus islam daf koy bañ mooy gistu islam daf koy bañ léegi kenn amul lay soo ne woo naa soxna si jotoo ko envoyé ko message boo tukkee ba sàngam laay ñibbisi waaye am na ñoo xam ne sax seen ñibbisi dañ koy néager ah, peut-être lundi lay ñëw ah fekk samedi lay ñëw. am na sa soxna noo xam ne boo ko ko bettee sax du neex dangay bàyyi mu sañ sañse jaagar jaagari togg dara teg lal néeg bi lal lal bi defaral la ko ba mu njëkk taal cuuraay ah ne mu daj ko ci yow boo ñëwee sa xol naat xolam naat nga fell yeey jox ko mu fel yeey li sëñ Hadi Touré wax ah waaye boo yootee yoot ba ne jama ci kawam fekk néeg baa nga jaxasoo bopp baa nga ràpp sanguwul mu ngay xeeñ waañ rafetul rafetul nit dafay am confiance ci ki mu àndal dañuy wóolu wante bu ngeen wóolu wante wut kenn ko ne ngeen ñaanalante ngeen dem waaye wóolu wante dafa war a am moo tax nag yàlla ne képp ku tuumaal sa jabar walam yakun te indiwut lahum di leen ñeel shuhadaau ay seede muy ñeent seedatuna Aïcha nag nee na ñett sax doy na sayyidatuna Aïcha nee na boo demee ci muqaddima bi nee na ñett sax doy na xam-xam mu ne waaye la gën nag mooy ñeent mu ne waaye ñetti seede sax doy na comme yàlla nag arbaa la indi moo tax ca biir dina ñëw moo tax mu ne walam yakun te amuñu lawum ji leen ñeel ñoom góor ñooñu tuumaal seen jabar njaalo mm-hmm. shuhadaa ci seede yi ñu laaj illaa anfusahum lu dul ñoom cundum illaa anfusahum lu dul ñoom ci walla yow ci ndum yow mi tuumaal sa jabar yow dong yaa fekkee yaa gis dëgg yàlla yàlla maandu yaa bi fekk waa jaa ngi ci koom gis dëgg moo tax yàlla li wax leer na de yaa ubbi néeg bi fekk waa ji ci koom yaa dem ca hôtel ba nekk yoot ba fekk ko fa yépp day am yaa xam fañ joxante rendez-vous ndax léeg-léeg boole wante yee tax ba fekk action bi yëpp nga gisal ko sa bopp waaye yàlla nee na amoo benn seede yow ci ndum la mu ne taxul mu doy duñ ko ci duma duñ ko ci caw duñ ko ci caw bu laajee caw duñ ko ci rey bu laajee rey ndax yow dong la amoo ñeenteel te xoolal yaa gisal sa bët maa gis yàlla ne sama yoon newu ci gis nga yàlla ndax sutura yàlla ma gis mu ne lu ci sama yoon yaa gis man maa la dàq gis gis na ñu ne yàlla kon lu ñuy def mu ne fa shahadatuhum fa shahadatu ahadihim kenn ci ñoom yow mi tuumaal sa jabar yaay seede da taxaw ci kanamu ilimaan wala qaadi soxna si taxaw seede yi taxaw maanaam seede yi qaadi di indi taxaw nga waat jóg taxaw ne billaahi géñ naa ci yàlla ni maa gis ndaw si muy njaalo maa ko fekk muy njaalo gis naa action bi lépp gis naa ko te ñeenti yoon nga koy wax ah ñu ma ma ma baal ma rek xaaji ma silla fa shahadatuhum mu ne seen seede arbau shuhada shahadatin arbaa shahadatin ñeenti seede lay doon billaahi yoo xam ne danga naan billaahi innahu li mbir tey mbir innahu mooy la mina saadiqina gëñ naa ne wax naa dëkk waa ji maa ko fekk muy njaan ndaw si sama jabar la maa ko fekk muy njaan mu ne wal xaamisatu foofu la danger bi nekk wal xaamisatu mu ne juróomeeli waat ba nag boo waatee ñeenti yoon billaahi maa ko gis muy njàllo billaahi maa ko gis muy njàllo billaahi maa ko gis muy njàllo ba muy ñeenti yoon dégg ngeen wax bi ba muy ñeenti yoon ne wax naa dëgg de maa ko gis muy njàllo maa ko fekk muy njàllo mu ne juróomeel bi nga ne billaahi su fekkee lii ma wax du dëgg merum yàlla yàlla na wàcc ci sama kaw foofu la danger bi nekk gis nga gis nga yàlla ni mu lay piéger merum yàlla yal na wàcc ci sama kow su fekkee ne bokk naa ci ñi fen waaw wal xaamisatu an laanatullahi mooy rëbbug yàlla alayhi yal na nekk ci moom in kaana dem nekk na minal kaasibina di bokk ci ñiy fen ndaw si door a jóg taxaw moom itam ne billaahi walla tallaahi day fen gisuma may njaaloo tallaahi day fen gisuma may njàllu tallaahi day fen gisuma may njàllu ba muy ñeenti yoon mu ne moo tax yàlla ne ah, eh, la min ansaani wal xaamisatu an laanatullahi alayhi in kaana min alkaazibina lu ci topp wa yadra'u bu boobaa ku góor ki kenn dootu ko caw juróom-ñetti fukki yar xam looloo tax yadrahul an aza anhul azab am xam nga bu ko waxuloon ne maa gis muy njaaloo lu doon doon jabaram dañ koy caw juróom-ñetti fukki yar la tax ci mbugal mooma ngëtën booba nag di ko teggee ko mooy waat yi bu waatee nag ba noppi kenn dootu ko caw ndax benn seede la woon te ñeent lañ wax moom mu ñëw wax caw yooyu lañ koy dindil mooy mooy mooy juróom-ñetti fukki yar yi kenn dootu ko ko caw ah? moo tax mu ne way yadra'u nañ ko jeñal anhum ci moom ci al azaba mbugal ma lañ ko waroon a caw bu ko ko kenn cawati mu ne nag bu paree ndaw sa it taxaw an tashhada mu seede arbaa shahadatin ñeenti seede ne billahi maa ngi gën ci yàlla ne day fen wax ko ñeenti yoon ne innahu liy mbir tey mbir laminal kaasibiina gëñ naa ne day fen waxut dëgg mu ne wal xaamisatu juróomeeli gëñam nag moom mooy wax ne an lii mbir tey mbir su fekkee ne li ma wax du dëgg man ndaw si xadiballaahu meruk yàlla alayha yal na wàcc ci man in kaana nekk na moom mii min al saadiqina di wax dëgg su waxee dëgg yàlla na merum yàlla wàcc ci sama ko xam nga nu ñuy def nag bu boobaa firi ba kii dañuy jël këram kër waaja lañuy jëm jël bagage yóbbu kër baayam keroog la sëy ba tas te dootu ko dagan ila yawmil qiyaamati dañ rëbbuwante dootu ko dagan ila yawmil qiyaamati jeex na day ñibbi mu ñibbi ñu toog nag xaar àtteb yàlla ku fet nag yàlla def li nga waxoon ci sa ko loolu ko jar bàyyeeg yàlla ah bàyyeeg yàlla waaw Cheikh Abdul foofu laay tëjee jox masil la wax nañ ne martabaam bu rëy bii li ko ko indil Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar moo ma ko nettali ca Mbour bokkul ci li ma yër ci téere waaye Thierno Bachir moo ma ko nettali te Thierno Bachir ñu ko raw ci réew mi nag bariwul ci xam-xam nag laa wax sax boole ci mu ne Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani dafa amoon soxna su doy waar soo xam ne bu góor gi ma saa nekk ci baytu xalwaam rek moom góor lay fanaanal ci biir néeg bi te soxna am na te xamu ci dara keroog la ko yàlla yéegal mu nekk sultaanul awliyaay nekk ci néeg bi soxna si jël na gën teg ci kaw lal bi muur ko jaar ci fenêtre bi dem Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ñëw muri mbàjj mi gis fa gën cinq minutes la toog rek soxna si cëppeelu mu ne ko foo demoon muy nakk-nakkal te fekk xamoon na li muy doxe soxna si ne ko suturaal ma boo ma suturaalee yàlla suturaal la mu ne ko suturaal naa la te yàlla tax bés boobu la yéeg ci maqamatul xutbaaniya ñun nag balaa ñoo kontaan weerante dem tës journal yëpp nga woo leen koo xam téléphoné ko sama yaar ji day moom bett na ma bi lay bett na ma astu kunta bett na ma ku nga woo ko ku ne nga woo ko ku ne nga woo ko weer nga sa bopp parce que dogit bu la yàlla boole woon la boo ko suturaalee suturaal sa bopp boo xawee suturaam su xut sa sutura nga xawi su ngeen demee bi mënatu leen nekk ah fabaasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiqillahu baynahuma su loolu mënta nekk yàlla ne maa tey wa in yatafarraqa yugni lahu kullan min saati la ilaha illallah yàlla dafa am fermeté ci li muy wax mu ne bu leen ma sonal yow góor da nga bari affaire sa sikkim bu rëy bii nga yaakaar ne yaa yor sa jabar yoroo koy fase ma yor ko man yàlla yow jigéen bu fi nekk naan ku doo am mukk ku la muñal ni ma la muñalee lu ciy sa yoon yow demal rek xanaa xol bu jeex a tax ngay wax yow it bu soobee yàlla kër gii kenn du fi toog ndax li ma la muñal ci kër gii kenn du la ko fi muñalati waxoo dëgg booy dem keneen ñëw ku mën a muñ boole ci yàlla ne demal rek ci jàmm ak salaam waaye bul ko rëbb moom it bum la rëbb wa in yatafarraqa yàlla ne bu ngeen càqali ko yoo ni dana oomalal kullan kenn ku nekk ci yéen ñaar min saatihi ci wërsëgam moom yàlla ndem yonent bi la yàlla door dóor boobu boo boo xam ne bu doon mise à tey dóor ko soxnaam yi keneen waxe noppi loolu exemple la xoolal li yàlla wax yonent bi asa rabbuhu in tallaxakunna aay bu bokk na ci yi ma gën a ne rabbuhu in tallaqakunna an yubaddilahu aw yubdilahu azwajan xayran minkunna muslimatin muminatin xaanitaatin taaibatin saaihatin thayibatin wa abkaaran saydatuna Aïcha ne nag ar abkaaran jaama ci gën a naqari nag te seyd ndax saydatuna Aïcha ko jiite woon complot la woon ñu comploté yonent bi xam nga ne kon yow buñ la ko defee bu mu la naqari comploté yonent bi ne kii nag dëgg-dëgg sonal nañu moom mu ngi ne nii naan moom la yàlla yónni moom mooy yonent bi mujj ñu ngi nii ku ci añ doo reer ku ci reer doo ndékki ah suñ yaa ngi nii di jaagar jaagar yi di sañse ba jekk ñun gànjar buñ takk sax amuñu ko benn mbubu mii ñu am ak bu sedd ak bu tàng lañ am bu tàngee ñu mël fawoo bii bu seddee ñu muuroo bële mu bëgg a ñoo rey ak moom la yàlla yónni ñu ne Aïcha ñun de bëggoon nañ ko wax waaye dañoo ñemewut comme yaa ko jiite nag a ci bismillah mu ne maa koy diriger ñu ne ko naka la mu ne bu ñëwee comme nuyu ci yéen rek ne ko sama boppay métti moo ko diriger di moo tax fit wa daa de ah, te xoolal li ñu wax léegi hadisul ifki à l'âge de treize ans la wàcc ci kawam fukkeet ak ñett xoolal loolu mu moo jiite loolu mm-hmm. soxna yi ne ko bismillah yonent bi njëkkee néegam ndax yonent bi bu xëyaan ñëpp lay nuyu mm-hmm. dem ci ki moomee nag mm-hmm. bàyyi fa bagage am mu xëy rek ñëw nuyu sayyidatuna Aïcha salaamaaleykum yaa Aïcha waaleykum salaam man waxul sax yonent bi ne ko lu xew mu ne ko méttitu bopp rek laa fanaan wax ji daal moom baax ji daal bu baree sax day gën a métti rek yonent bi ne ko yal na yàlla saafara ko ndeysaan téye ci bopp bi ñaan dem ci ndekete ñaan nga kat dara complot la mu dem ci keneen lii wane ne complot la ñoom muy suñu sax kii mënoon naa wax lii kii wax lii kii wax lii waaye ñoom ñëpp métti bopp lañ déclaré jibril ñëw dee yonent bi ne ko complot la mm-hmm. waaye sa borom nee na bu ci wax bu ci jëf dana àddu yonent bi xëyaat deuxième jour nuyu leen ñu def noonu troisième jour mu nuyu leen ñu def noonu mu dem dëkk ca jàkka ja moom jàpp njàmburam ca pantare jàkka ja pendant quarante jours waaw ñun roy ñu bi yow fii ngay toog soxna si wax lu muñ zéro Sénégal muñ zéro ah muñ zéro ñun roy ñu rasulullahi 40 jours la toog ca pantere jàkka ja mm-hmm. astafurlah 30 jours dama jum fanweeri fan keroog la wax xadiis bii may wax mm-hmm. achahru moo tax boo jàngul xadis buñ la ko firilut mm-hmm. doo xam lu muy firi hakaza yi rek ngay gis moo tax mu ne keroog xadiis bii may wax achahru hakaza du mooy fukk fukk muy wa dafa ne achahru hakaza du wa hakaza dix muy vingt mu banque benn bi bii ne wa hakaza muy vingt neuf fa in xumma fa akmilu salaasina fa in xumma aleykum su ñiisee ci yéen ba gisu leen ko mottali leen fanweeri fan waaye weeru weeru yàlla wii wolof dafa féex rek naan weelu wolof ana weelu tukkulóor bon ak naar ak sooseeg joola wolof lu moom rek lu moomale boppam sax fafu ko moom weeru yàlla wii vingt neuf jours la yem moo tax kuy tënj vingt neuf jours lañ koy calculer pendant quatre mois nga teg ci dix jours dégg ngeen wax bi bi matee trentième jour nag la Jibril ñëw indi laaye jii may wax bii may jàng si nii la indi ba après la ko indi waaye bi mu njëkk a indi dafa ne yonent bi euh, yaa nisa yaa ayuha nabi qul li azwaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fa taalayna umattiukunna wa usarrixkunna sarahan jamila waaye wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara alaxirati fa inna allaha aada lil muxsinaati minkunna ajran azima dem ba ci biir nag dóor leen affaire bi yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin min annisaa'i in ittaqaytunna falaa taxda'na bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan maarufan waaye nag waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljaahiliyati luule wa aqimna salaata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu innama yuridu llahu li yuziba ankum alrijza ahla albayti wa yutahhirakum tathira jibril jàngal ko yonent bi ba mu jeex yonent bi ne pat xam ne ko njëkkee woon ci soxna yi rek këram tas loolu nag ku am benn soxna doo ko xam benn soxna moom li may wax rek bu tukkee nga ñàkk bu feebaree nga tumaranke bu dee nga torox waaw xasuma leen nag ñu baal ma waaye benn borom soxna bu tukkee nga tumaranke bu feebaree nga ñàkk bu dee nga torox lii may wax ku amul ñaar ba ñett doo ko xam ba ci doom yi nag am na ci doom yi am na soxna soo xam ne boo amul dépense mën na ko muñ lijjanti ko ba bër set mu doon laa wax nijaay wala papa ah démb kat maa lijjanti waaye dépense bi joxagooma ko waaye am na koo xam ne bu dépense fanaa noowul ci kër gi hmm. xale yi la naan dem leen wax seen papa xale yi ñooy papa mburu ndekki papa ti fekk papa fanaanoowul cent franc wala déet xale yi la naan dem leen seen papa jox leen mburu ndekki moo ko tey xale yi ñëw la jël li huit xam nga doom ju naan papa mburu ndekki te fanaanoowoo cent franc di nga teel a génn ndaw see koy tey day bëgg nga teel a xëy dégg nga mm-hmm. am na koo xam ne lu mu am mbokkak ak yow mm-hmm. waaye am na koo xam ne billaay lu mu am doo ko gis li nga am rek lay gis ku am ay soxna di nga ko xam yonent bi nag xam ne kër gu ma ku ma ci njëkkee ci ñoom ku dul Aïcha sama kër tas mu njëkkee ci sayyidatuna Aïcha te booba it xam na ne moo jiite complot bi mu ñëw ne sayyidatuna Aïcha ji ah, ah, lay wàcce na mu ne ko wan lay mu ne ko Jibril wàccee na laaya mm-hmm. sama borom réglé na situation bi lu xew Aïcha ne ko lu xew mu jàng laaya ji yaa ayyuha nabi yow ki yàlla yónni xul waxal xul neel xul firiwul waxal de su ma nee Serigne Cheikh Tidiane Sembène waxal loo la neex ngay wax su ma nee Serigne Cheikh Tidiane Sembène neel da nga naan Chérif Ibrahima nee na xul neel lay firi yaa ayyuha nabi yow ki nga xam ne maa la déey lu ma déeyut kenn su neexoon yàlla mu ne yaa ayyuhal muham yaa ayyuha muhammad wala yaa muhammad am na ci sañ-sañ waaye ormal yonent bi moo tax tuddul turam ormal ko ak bëgg ko ak fonk ko ak wekk ko moo tax tuddul turam mu ne yaa ayyuhan nabi ey yow mi nga xam ne maa la déey lu ma déeyut kenn ne ko loxo mu ne ko xul neel li azwaajika ñeel sa soxna yi in kuntum na su fekkee ne turit na dañoo bëgg rek xayaata dunne xayaata dunye dunduk àddina gi gànjar jaagar-jaagar yi jesner or takkaay wazinataha ak taaram fa taalay na nang leen woo kenn ku nekk ci ñoom fa umatikun na ma di la jox nga di leen jox bañ na doy na <laughs> awaay yàlla bëgg yonent bi mu ne ko woo leen par kenn kenn ñu toog mm-hmm. luñ laaj ma jox la nga jox leen luñ laaj lu mu rëy rëy mhm. ci gànjaru àddina ak luñ bëgg ma jox la nga jox leen waaye u sarrex kun na nag danga leen di fase bu boobaa ñu dem saraaxan pase moo xam ne jamilan mu rafet la ñu dem nga dem waaye wa in kuntun na su fekkee dañoo bëgg mm. turit na dañoo bëgg allah buur yàlla muy man mi wàccee lii ci yow mm. wa rasulahu ak yow mii ma yebal ci ñoom fa inna allaha naka buur yàlla mm. aada xaaree na préparel na mm-hmm. min kun na kenn ku nekk ci ñoom jigéen ñooñu mm. ajran yiw ak ajjana woo xam ne aziman wu rëy la ca moom mu tegal ci leen nag di leen yedd ne leen yaa nisaa annabi yéen soxna yonent bii nag mm. dëgg-dëgg xamu leen ne lastunna ka ahadin min an nisaa yi xamu leen ne bokku leen ak jigéenu àddina bi mm. yéen ay exception ngeen yéen premier classe ngeen bokk yéen bokk leen ci xëccoo mi bu leen xëccooti lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna su fekkee bàyyi ngeen ma xel man yàlla te ragal ma fala taxdaana bil xawli bu leen fi nekk góor gi ngeen taseel naan ko papa na nga def siidi ça va très bien jigéenu jàmbur du jàmma sante jàmma sante ju bari jigéen ñi aussi gis nga soxnaay yonent bi la ko wax mais c'est valable pour vous boo dee soxnaay jàmbur bu fa nekk di rouler air Ça va Hadj Massila comment vas-tu eh ça fait longtemps Hadj Massila gëj na la gis. islam bëggu daf koy tere. ne ko alaaji Massila gëj naa laa gis na nga def ma jàmm mu dem nga dem. eh alaaji Massila gëj naa laa gis eh waaye Silla maa maa la lu ci sa yoon jëgg góor jàmbur loo ci nam loolu la yàlla wax yonent bi mais yaa nisaa annabi in yéen soxna yu ne in taqaytunna su fekkee am ngeen ak ragal yàlla fala taxdana bil qawli bu leen neexal seeni kaddu su ngeen ko defee fa yatma alladi fi qalbihi marad ki nga xam ne dafa am faiblesse te jigéen ñi bàyyi leen ci xel am na koo xam ne boo ko nuyoo ñaari yoon sax mu ne daf maa nopp di déclaré ay ci des classe man sorge yi gii boo leen nuyoo ñaari yoon masla ñu léegi mu déclaré ma xaaral rek te fekk dafa baax rek di masla ak yow waaye dañ la ciy yabee sax foofu waaw fayat ma di fi qalbihi marad dafa am mu ne góor ñi ñu feebar ñu doye di pas-pas ñu ne ko nu ñuy def mu ne waxul na na ngeen wax rek yéen jigéen ñi xawlan wax joo xam ne maarufan ju jekk la te dem seen yoon dem ba ca biir nag ne leen innama yuridu llahu xanaa xamu leen ne yéen waa kër yonent bi yàlla dafa bëgg lu yusiba ngir mu dañuy faawu ci yéen ar-rijsa bàkkaar wa yutahhirakum mu laabal leen ba ngeen laab tathiran bépp bu laab saydatuna Aïcha yonent bi jàngal ko ko ba mu jeex mu ne ko mbaa bu ma la waxee li ma wax doo ko wax ñi ci des te moo ko jiitee kat mu ne ko ah ab yonent de du fen jullit sax du fen suñ ma ko laajut du ma ko wax waaye suñ ma ko laaje ma wax mu ne ko man dey tànn naa yàlla ak akub yonentam muy yow ba ëllëg loo am mbokk ak man waaye àddina banaa ko bés ni tey loo am nag doy na ma ku mu ci moom xam nga lu muy wax lu ay na kon bu Aïcha dérapé woon ñëpp dérapé ñëpp ci dem rek dafa naan ko lu Aïcha moo taxoon la mu waxoon xuzu jël leen seen genn wàllu diine ci jigéen ju xonq ju tuuti ji bu dérapé woon ñëpp dérapé waaye kum ci laaj rek mu ne ah Aïcha nee na mm. tànn na yàlla ak ub yonentam mm. ñu ah mayit tànn naa yàlla ak ub yonentam mm-hmm. keroog la problème bi réglé mm-hmm. yàlla yemu ca di fayul yonent bi ñëwaat ne Aïcha boobu Aïcha ko moom asa rabbuhu am ngeen sens mm-hmm. loolu lay firi ay yéen a am sens asa rabbuhu mbes la seen borom in talaqakunna bu ngeen roppoon reppoon ba mu mm. an yubaddilahu dana leen remplacer yéen ñi xayran ñu gën foofu min kun na ci yéen sayyidatuna Aïcha ne ci laa njëkk a xamee ne ndek am na ñu ñu gën ci Medina te dañ foogoon ne yoo nekk au top mu ne ndikete woo yàlla denc na ñu ñu gën xayran min kun na la yàlla wax di ko lim nag muslimatin ay jullit piir la doon muminaatin ñu gëm piir xaanitaatin ñu ñuy jaamu yàlla piir par guddi ah taaibatin ñuy dëkkee tuub ah aabidatin ay jaamukati yàlla saaihatin ñuy woor daayiman la ñuy doon bu booba sayibaatin ay jeeg la ñuy doon waabkaaran ak i jànq sayyidatuna Aïcha ne ma foogoon ne man rek maay jànq ci dëkk bi ni ko yàlla denc na yeneen i jànq yu ma gën moo tax ngëneel ci loxo yàlla la nekk nañ def très attention góor-góorlul jaamul yàlla toppatool sa digganteeg say mbokk ormaalal ñëpp waaye ngëneel bàyyi ko ci loxo yàlla inna akramakum indallahi atqaakum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu